aousubillahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ànd ak ñun ci seen euh, chaîne Mouslih TV rawatina seen émission bi di jotaay ak boroom xam-xam ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla def ko seen kaw def ko seen kaw njaboot def ko ci kaw képp naan ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi salallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko doon digee rek di seeti boroom xam-xam yi waxtaan ak ñoom ci suñu wàllu àdduna suñu wàllu diine ak luy yéwénal li nga xamante ni bii mooy mbokk bi tey ñu ngi daal kenn ci euh, suñuy oustaz def naa ne du gan ci émission bi duñu def lu dul bàyyi leen ak euh, sama euh, caméraman bi mu jox ko kàddu gi oustaz salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ndokkeel ci liggéey bu rëy bii ngeen di def di nuyu mboolem yi ñuy seetaan ak fuñ mën a ne di leen wax yéen ñëpp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilah mooy docteur Abdoulaye Lam di sunu kilifa di sunu xarit kon ñu ngi koy ñaanal yàlla jéego yi mu def ba yegg si fii yàlla defal ko tawfiq ak taysir oustaz dañu jóge ci xew-xew bu rëy ci senegal lu jiitu muy ñëw fit yi xel yi jaxasoo woon nañu tiitoon nañu kenn ku ne di yaakaar ne kat li ñuy gis ci yeneen réew yi amaana mun na fi ñëw ngir rëj gi nga xam ne amoon na fi muy lan ba àdduna bi yépp jël seeni ay gët jël seeni ay matuwaay di yaakaar ne kat li xew ci yeneen réew yi gannaaw élection mën na fee xew waaye oustaz li ma njëkk jaaxal te moom laa lay njëkk a posé question dal gi sénégalais yi am bi élection bi passé ba ba ñuy génne résultat bi dal googu jaaxal na ma oustaz. waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa foofu rek mooy ma bikum min ni'matin fa min allah hmm. nañu sante dal googu borom bi subhanahu wa ak xéewal boo defal Sénégal la defal ko sénégalais yi def ko ci élection yi nit ki nag su amee xéewal na ci sant yàlla waaw wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis xéewal sant lañ ci war a def yaa rabbi laka alhamdu kama kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci xéewal googu borom bi defal ñu waaye bu ñuy jàngat mën nañoo gis ne Sénégal réew la moo xam ne nit ñi fi nga leen di natt ci ak ñor romb nañu ko. Hmm? waaw romb nañu ko ndax góor jigéen mag ndaw bésu élection yi kenn ku ci nekk dafa am maturité bu toll ni jóg ak dal dem wate ji dellusiwaat këram. ñi watewul toog ci seeni kër jàpp seen jàmbur hmm. kon loolu jar na félicité bu baax a baax comme ni nga ko waxee. ñu bëri ci biir réew mi jaaxle woon nañ ñu bëri ci biti moo xam observateur yi wala ñeneen jaaxle wan nañ ñi sàmm kaaraange ak wàllu sécurité. Mm-hmm. amoon nañ ak jaaxle waaye Sénégal yi wan leen wan leen ne loolu jaaxal leen ñun du suñu problème ñun daal ay élection la ñu dëgmal dinañ def mat gu toll ni li ñu yëkkati dinañ ko def duñ ci ànd ak wax ba pare delluwaat suñuy kër toog. kon loolu dafay wane maturité nit ñi si le plan politique fi ñu leen di natt romb nañ ko ci wàllu maturité fi ñu leen di natt romb nañ ko mën nañoo xam ak ne euh, am na nag élément yu bëri yoo xam ne participé na ci. Euh, mën naa ci tudd yenn rek nit mën na cee bañ a ak man. comme nit mën na cee d'accord ak man. ñëw ma aussi pour wax élément yi nga xam ne yëpp moo participé ci daluk Sénégal yooyu. Hmm. waaye nitu diine ci Sénégal seen rôle bi ñu joué ci élection yi. ñëpp wax ci def ci ay xutba def ci ay bayaan def ci ay émission ci télé ci rajo yi hmm. ak ci réseaux sociaux yi jàpp naa man ne participer lu bëri ci daluk Sénégal yi ñu tuddee ne yëpp nag laa wax hmm. kenn ku ci nekk wax nga ci association yi wax na nañ ci imaam yi wax ci tarixa yi wax ci ñëpp wax ci te nit ñi kenn ku ne ci Sénégal sénégalais boo gis am na fu muy askano hmm. foofu muy askano su fekkee ne lancé na benn appel ci nañu dal hmm. nañu ànd ak tekk nañu ànd ak teey nañ dem watu ji del suñu kër yi toog yaakaar naa ne kàddu boobu nit ñi dégg nañ ko te loolu bokk na ci li leen may ci li ma jàpp hmm. ñu ànd ko dal incha allahu taala ba yàlla defal ñu tawfiq kon ñu ngi félicité Sénégal bu baax di félicité sénégalais bu baax di ñaan borom bi subhaanahu wa jàmm ji yàlla na fi yàgg yàlla na fi sax mat gi yàlla na fi sax nit ñi dañ ci jàngee ñoom ñëpp day wane aussi nit ñi ñu bëgg seen réew lañ ñu bëgg ak dal lañ ñu mm-hmm. bëgg jàmm lañ mm-hmm. ba tax ñu demee jàmm jooju alhamdulilah ala dalika oustaz xam naa du ñàkk bis ñu waxtaanee jàmm jooju ñan ñoo ko fi saxal ndax gis nañ ñu ci bëri daaw ñu ci wax ci wàllu politique vingt ans ci ginnaaw dix ans ci ginnaaw waaye mu mel ni ñoom ñëpp ñoo génnandoo mel ni dañ ko waxtaanee tijaan bi murid bi salafis bi euh, ji waa jamaa ibadu rahman ak ñeneen ñoom ñëpp jógandoo boo demee ci jàkk yi oustaz man mu si jaaxalo dafa mel ni xutba yi ñoom ñoo koy préparé ndoo mu doon loo xamante ni bi ñu ngi ciy sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala sant kilifa yi nga xam ne itam ñooñu jiitu woon ci liggéey bi oustaz yàlla dogal na président Macky Sall ñu ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawféex ndax jàmmam mooy suñu jàmm réussite am mooy suñu réussite kon ñu ngi koy ñaanal loolu oustaz cinquante ñaata huit pour cent ñu falee ko Macky Sall fal googu rafetaay bi oustaz nan nga koy jàngatee. léegi d'abord du ma ab politicien buy analyser loolu il faut ma wax ko. Hmm. dugguma kenn di interpréter lii may wax am fu mu ko féetalee. Hmm. sénégalais yi ñoo ko ñoo waxal ala kulli xaalin am na ci Sénégal ay institutions yoo xam ne ñooy saytu élection yi. Mm-hmm. ñooñu bi ñu doxee ñooñu jox résultat yi cinquante huit virgule pour cent. Mm-hmm. loolu li muy firi mooy ki nga xam ne moom lañ jox ndam li nit ñi ñoo ko wateel. Mm-hmm. alors loolu lay firi. ala kulli xaalin doon nañ wax. balaa élection yi lu ci mën a xew yal na Sénégal gagné. Mhm. yal na fekk ne ndam lii nii cinquante huit pour cent yi yu tegal yi yal na fekk ne ndamul Sénégal. loolu daal la ñuy ñaan yàlla bu nekk ndamul Sénégal. Mhm. bu nekkee ndamul Sénégal jàmm rek mooy am bu nekkee ndamul Sénégal tawfiix rek mooy am. Mhm. léegi nag li ñu ci jëlee mooy ki ñuy jox euh, cinquante huit pour cent yooyu. moom itam na xam ne nit ñi dafa am liggéey bu ñu ko sas dafa am lu ñu yaakaar ci moom daa am lu ñuy xaar ci moom moo tax ñu jox ko seeni voix loolu daal su amee moo xam ne waaye du saraxe wuñu ko mayewuñu ko dafa am lu ñu bëgg jàpp ne kii mën na ko ñu sas ko ci juróomi at yi ci sunu carte yi ñu sànni lii lañ ci soxla tabarakallah loolu mooy premier laaj bi ma la bëggoon njëkk samp hmm. léegi responsabilité boobu cinquante huit pour cent responsabilité la bu rëy rëy rëy rëy rëy li ñuy xaar ci moom bëri na lool lool est-ce que dina mesurer li nga xamante ne bii mooy diisaayu yaakaar boobu sa ay nit ki yaakaaram la am yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar amiin loolu yàlla tas suñu yaakaar tas waaw ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala yaakaar ji ñu am. Mm-hmm. yal nañu ko defal. amiin yaa rabbal la ñun ñëpp. amiin yaa ilaahi loolu mooy li am solo ala kulli xaalis sénégalais yi am na ay difficultés yu nekk seen kanam yu bëri mm-hmm. dina am yu ma ci tudd rek. Mm-hmm. ñu yaakaar ne président bii ñu faral équipe bi mu àndal. dinañ leen dinañ leen relever seen défi yooyu. Euh, man en tant que jàngalekat damay commencé ci défi école bi. aywa école bi yàgg na fi. di am ay problème ay at. ba nit ñi jàpp ne système bi léegi yàqu na baaxatu mm-hmm. mu feeñ ci niveau élèves yépp mm-hmm. ak étudiants yi mm-hmm. loolu ma ne jot na mu faju te mandat bi bëgg nañu suy départ rek nit ñi commencé yëg solution yi dégg naa démb ki ñu jox njàng mi mu wax ni dialogue la gëm système bi ñoo ko bokk dañ bokk ñëw ñu toog waxtaan kon nu ñuy indee saafara. ñu ngi rafetlu kàddu googu. nañ ci impliqué parents yi. bon ci yëpp nañ dem ñu toog càmbar système bi xool dëgg dëgg dëgg dëgg yàqute bi fan la nekk. ñun ñëpp ñu am yéene saafara ko. ba pare taxaw ngir saafara. léegi foofu oustaz démb rek maa ngi dégg ci seen syndicat njàngalekat yi di wax ne dañuy fa waaj dem ci ay grève ci lislaam bu fekkee doomu aadama da nga dëxalante ak moom benn mbir. dem ba ci biir moom mu xam ni munu ko mu dellu siwaat gannaaw est-ce que yow da ngay toog fi nga toogoon rek ne li nga xasoon signé li nga xasoon wax foo nga def ko ngir jàmm mun a am wala da ngay bàyyi loolu ngir jàmm am ci lii ñëw nga daal di bàyyi yenn ci yoo xamante ni bii say intérêt la. Euh, mën naa am bu ñu duggee foofu tomb waxtaan bi ci loolu rek lay am mais damaa bëgg rek ñu tëral ay principe hmm. yoo xam ne nañu ko doxee ñun ñëpp ci man bi principe wu nit ñëpp. am yéene système bi nañu taxaw pour defar ko hmm. bi ci des kenn ku ci nekk na nangoo ñëw toog ak sa morom ngeen waxtaan nga wax ko li nga jàpp ne moom moo koy defar te nañ ci impliqué ñi ko séq ñépp ministère rek yeneen démembrement état yi nga xam ne am nañ ci wàll ak jàngalekat yeeg hmm. euh, parents yeeg hmm. ñooñ ñëpp nañ ne ci suuf ñu bokk toog bañ a naxante mu bañ a nekk ay daje yoo xam ne su paree kenn ku ne am per jom xaqtaay ree dem mm-hmm. waaye fekk la leen yëkkati mooy toog waxtaan bëgg saafara jàngoro yi nga xam ne moo nekk ci système éducatif bii na fi mm-hmm. su paree nañu am plan bu leer mm-hmm. nañu am vision bu leer nañu jóg dégg nga taxaw wax le lii ci dale bii dinañ ci def lii ba loolu ñu man koy évo évaluer. Mhm. su fekkee ne dox bi ñu ngi koy évaluer lu ci nekk ñu évaluer ko xam lañ lañ ci réaliser lu ñu ci réaliser woon bu boobaa na xam tamit day jeex. loolu mooy auto évaluation bu fekkee dañ ne kat jàng bi bëgg nañ mu yegg barab sàngam ci juróomi at bu fekkee def na ñaari at ak genn wàll rek war ñu dog xaaju yoon wi loolu dinañu permetre ñu xam ndax bu fekkee doxin wii ñuy dox. Mhm. Euh, dafa yéex ñu xam ko. Mhm. bu gaawee ñu xam ko. léegi dafa am loo xam ne ñu ngi koy xeex ne ñu bëgg njàng mi nga xamante ni bii moom la daara yi euh, ñi di mbubboo daara wala taalibe yëg yooyu bëgg nañ itam mu dem te loolu tam ci enseignement la bokk est-ce que daara moderne yi dañ koy gën a yokk wala dañuy fekk daara yee ñu jël leen organiser ndaxte bëri nañ ci ak Sénégal foo xamante ni bii mënoo fa dem te fekkoo fa seen daara léegi ab ànd dafa laaj négante ab ànd dafa laaj négante doo jiitu rek dem daara moderne yi baax na daara classique yi fi nekkoon baax na yépp nañu ànd kenn ku ci nekk fa nga toll ñu jàppale la ngay améliorer ba ñun ñëpp fi ñu bëgg njàngam daara yi àgg mu àgg fa su loolu amee rek yaakaar naa incha allahu taala dina dem mais système bi ñu fi fekkoon baax na liñ ci yokk moderniser ko baax na mais dañuy boole liñ moderniser ak li fi nekkoon ñu jàppalante kenn ku ne di xëcc sa morom li nga am ci lu baax nga wàll ko ko ñu ànd ñu ñëpp mën a dem incha allahu taala. bu fàttali maa ngi doon waxtaan ci yi Sénégalais yi xaar ci président. ma njëkkee ci njàng mi. am nañ problème am nañ problème am nañ am nañ problème bu rëy balaa maa ñëw ci xëy mi dafa am xëy mi yeneen problème yu ko jiitu pour mooy sénégalais yi namm nañ loolu justice. waaw tey dañoo jàpp ne justice bi fiable dañ jàpp ne ñi ci nekk amuñu liberté. ci li ñuy def ñu def ko ci ni leen ko yoon sant foofu tam ñoo ngi ciy xaar état mu indi ci ay solution ba nit ñi am satisfaction xam ne justice du Sénégal gàcce ngaalaama li ñuy xaar ñoom mën nañ ko dinañ ko def léegi nag lii tax ñu mën ko nañ leen permettre ñu def ko insha allahu taala ba kenn ku ci nekk yëg ne kenn tooñatuma su ma amee sama àqit naa ci jot bu ñu néewal kenn doole ba na bëri na problème yu fi nekk yoo xam ne problème mu justice la dëgg dëgg dëgg. nañu nañu nañu justice bi mu am indépendance. Hmm. loolu dafa bokk ci yi nga xam ne dañ ko war a xool càmbar ko defal ko ay réforme hmm. ngir justice bi fii mu toll nii mu mën koo dépassé tënk yi ñu ko tënk ñu mën koo libéré ñàkk indépendance gi ñuy wax loolu jeex ba nit ñi mën a am confiance seen justice. Hmm. justice bi tam mën a wane ne effectivement moom liñ ko sant mën na ko te dafa tëddee njaaxaanaay li ko yitteel mooy dëgg ku ko am ku ko jox. Mhm. loolu benn la. Mhm. Euh, beneen problème moom fi problème mu foncier Sénégal daf fii compliqué. Mhm, suuf suuf yi lëjël yi ci am am na ñoo xam ne ne dañoo mer ba fut ndax seeni suuf yoo xam ne dañ jàpp ne ñoo ko moomoon ñu teg ci seen loxo. ñu teg ci loxo. loolu naqari leen amuñ fuñ koy jooyee. am ñoo xam ne dañoo jël suuf suufi jàmbur tey tëdd ji. nga gis koo xam ne dañ koy jaay kër jaay ko keneen jaay ko keneen. loolu itam vraiment ñu ngi laa ñaan état na ci taxaw bu baax a baax a baax. ba problème foncier yi am donte dégg nañ président. Mhm. ñuy prêter serment li mu ci wax. wax na ci mhm. loolu ñu ngi ñu ngi ñaan na am nañ ci nañ ci taxaw. Mhm. Euh, sévère bu baax a baax kenn ku ne ak xam ñu fexe mu jot ci ci wàll suuf ku nangoon suufam tooñ ko nañ ko delloo dégg fexe ba loolu yi ciy am dootu amati li lëj-lëj yi ci nekk nañ ko fexe lijjanti ku ciy jaar ñu dédommagé ko nañ ko dédommagé ku ci jaar ñu toxal ku feneen nañ ko toxal waaye daal balaa mandat bay jeex nit ñëpp ne ay la yéwén problème mu suuf moom amatuñu ko loolu ñu ngi koy xaar xëy mi beneen affaire la gis nga am réew ñëpp mënuñoo nekk kon dafa am secteurs yu fi nekk yoo xam ne nañ leen permettre ñu mën a développer suñu développer dinañ jël nit ñi ñu am am xëy ci moom ci ñoom kon ñu ngi euh, bëgg entreprise yu ndaw yi ak yu mag yi am na lu ñuy jooytu ñu fajal leen seen njooy lu ñuy jooytu ubbi leen ay bunt yoo xam ne dinañ mën a taxaw ba pare mën a jël nit ñi nit ñi am ay xëy. Mm-hmm. dina tax sax ñeneen créer ay emploi ñoom itam taxawal seeni entreprise pour mën a liggéey. Mm-hmm. Euh, di ñaan tam ñi nga xam ne ñoom ñoo saytu liggéeykat yi seen mm-hmm. àq ak ñi ñuy liggéeyal. fi ne liggéeykat yi li ñuy jooytu mooy soo amee problème. kenn du la taxaw kenn du la taxaw. boo demee ñi waroon taxaw non avant ah, syndicaliste yi am na ñeneen ñu fi ne inspection du ah, travail moo ngi fi a ngi fi leneen a ngi fi mm-hmm. waaye ku ci dem ci ñoom itam dañu yëg dañ lay gën a néewal doole mm-hmm. loolu itam vraiment benn problème la boo xam ne sénégalais yi bëgg nañu dañ problème mu ndox mm-hmm. problème bu réy ci Sénégal fi mu ne Dakar boo dem ñu ci ëpp duñu du ñu am ndox boo dëkkee ci étage boo moytul trois heures du matin quatre heures ngay am ndox kon Sénégal problème mu ndox am na fi fii ci Dakar noonu la ko amee ci intérieur dem naa ci côté boo xam ne benn département boo xam ne alors euh, seen teen yi ay cent vingt mètres la. cent oh, ma loolu. alors ma ci waxtaan ak benn responsable mu ne ma soxla nañ treize forages yoo xam ne su suñu ko amee lay doog am li ñu soxla ci ndox. Mhm. suñu ko amoon dañuy continuer eh, di am problème ba léegi. Mhm. donc comme yooyu yëpp te mu ngi fi. Mhm. l'intérêt du pays. Euh, comme ni ko nit ñi waxee du Dakar rek mooy Sénégal. macha allah euh, am na ay ay. ay réalisation yu am solo yoo xam ne boo duggee ci biir réew mi dañ koy gis. Hmm. malheureusement ñu bari dugguñu dox tukkiwuñu xamuñu ko. Hmm. waaye ba léegi intérieur bi soxla na yeneen i jéego ngir mën leen a génne ci ndóor bi ngir mën leen a génne euh, ci problème mu ndox mi génne leen ci euh, enclavement bi ñu hmm. nekkee désenclavé ko. waaye encore sunu mbokki baykat yi ci àll bi. surtout ñun Saalum Saalum yi am nañu problème suñu gerte gi kenn du ko hmm. loolu problème la boo xam ne ñu ngi ciy yaakaar état mu utal ñu solution ba mbir mi féetee boor moo xam dafay réviser waat politique agri agricole hmm. nit ñi lu ñuy bay ak lu ñu dul bay. Hmm. mais daal bëgg nañ nit ñi di bay. te suñu bayee seen bay bi duñu am problème. ñeneen am na leneen luñ ci wax ñeneen di ci wax leen leneen di ci wax leneen. alors euh, di profiter en tant que bokk ci euh, ligue des imams. Eh, prédicateur am na benn mémorandum bu ñu defaroon doon ko gaaral euh, ñi nga xam ne ñooy candidats yi eh, ñu ngi gon ni di ko gaaral président Macky bi nga xam ne actuellement moo falwaat euh, ñaan borom bi subhanahu wa taala defal ko tawfiq ba li imaam yi xaar ci moom si le plan religieux mu def ba def lu ko raw insha allahu taala mm-hmm. foofu itam ñu ngi ko fi yoo mm-hmm. mémorandum bi jàpp nañ ne àgg na ci moom su àggul ci moom Euh, incha allah ñu jiite léegi bi mën nañ ko àggale ci moom euh, mu càmbar bu xool ko euh, ñeme ko dox ay tànk ngir loola incha allahu taala alors mën a mën a faju moom itam mm-hmm. kon ci tënk mm-hmm. mën naa am duñ mën a tudd yëpp mm-hmm. jàngoro yëpp waaye nit ñi daal jàngoro yooyu yëpp ñu ngi xaar état indi ci saafara incha allahu taala benn yoon oustaz fi nga njëkkee laay tàmbaliwaat mooy wàllu justice gis nga waa sudjust gis nga ñu ngi xaas greffier yi ñu ngi kaas juge yi di démissionné koo ci laaj mu ne man awma liberté wu joxal li nga xam ne moom la texte si wax avocat yi ñu ngi jooy dañuy am seen benn euh, client mu def ci kaso bi ay fukki at après mi ñuy def dañ koy bàyyi ne amul dara luñ koy toppee jàpp nit génnul réew mi mi ngi fi am na fi ay mbokk am na fi alal mi ngi fi ay entreprise am benn jafe-jafe bu ko jotale ak kenn ñu jël ko daal di koy tëj at ñaari at ñetti at procès du am yooyu yëpp gën nañ ci gën a góorgóorlu euh, njàng mi wax nga ci surtout ndox mi oustaz 67 pour cent wu Sénégal sox bu ñu soxlaa ndox duñ ko am te ku amul ndox lépp lu jëm ci wàllu set dafay am gàllankoor ndax ndox mooy cosaanu set oustaz bu fekkee ni bii yu mel nii am na te li ñu fi am ci temps mënuñu waxtaanee lépp lan ngay du wax sax digal lan la mooy li nga xamante ni bii kilifa diine yi war nañ koo participer donte yow kenn nga ci ñi nga xamante ni bii ñi ngi yilif ay doomu aadama yoo xam ne diine moo leen tënk. waaw loolu day jàpp naa ne kilifa diine yi am nañ ci rôle bu rëy ndax état bu fi nekk bu ne da leen a fonk gouvernement bu fi ne da leen a fonk respecté leen. am foo leen teg di déglu seen kàddu nit ñi tam ñëpp am fuñ leen teg am yaakaar yu ñu am ci ñoom di leen déglu kon ñu ngi ñaan képp kuy wax ci turu diine euh, kàddum wala kàddu askan wi mm-hmm. wala seeni soxla na ko jël def ko muy soxla seeni jafe-jafe na ko jël def ko muy ay jafe-jafeem seeni bëgg-bëgg na ko jël def ko muy ay bëgg-bëggam bu boobaa mu taxaw leen ci lim ci mën a faj mu faj ko lim ci mënta faj mu jottali ñi ko war a faj mhm. pour ñu faj ko ba pare mu taxaw leen mhm. taxaw ci ñi ko taxaw waaw mhm. mu am ab suivi dossier sàngam fu ngeen ci toll dossier sàngam fu ngeen ci toll loolu ndimbal lay doon ci état ndimbalee doon ci gouvernement bi. Mhm. bu nekkee ndimbal ci population bi tam dafay nekk ndimbal ci dirigeant yi. Mhm. ñu xam ne dossier sangam yi teel na Sénégal yi. ndax sëriñ di wax na ci président association sangam wax na ci loolu nag li muy firi mooy. mandat bi mandat bi mandat yi nañu wax. di soññi di soññi fàttali di fàttali. Mhm. loolu mooy seen mandat di ñaaxaate di orienté. di proposer ay solution waaw du sax wax rek mais proposer ay solution bunt buñ jàpp ne suñu ko ubbee yoo yor naa faju nañ ne pourtant de euh, du ngeen seet nangam ba xam wuñ too rek bàyyee mbir yi ñi ñu ko wéer ñi fi nekk li ñu li li ñun ñoo leen fi teg ñoo leen sant li leen sant dañ leen war a jàppale dafa bokk ci ni ko borom xam-xam yi waxee ab murabbi ab yarkat ab defarkat daa bokk ci ay melokaanam way dakal la fa aana bu la santee liggéey moo la ciy jàppale. Mm-hmm. kon ñi ñu sant liggéey ñoo leen ci war a jàppale. Mm-hmm. incha allahu taala kilifa dañuy nii loolu ma war a nekk seen taxawaay. Euh, dafa am benn taxawaay boo xam ne président Macky Sall am na ko. ci bi mu gagné ba pare. bi conseil joxe résultat yi bi ñu demee pale ñoo baara ñoo nga fa woon mais dafa tàllalaat loxo opposition bi tàllalaat loxo président yi nga xam ni ñu ngi fi woon te yàlla dogal ñuy dund muy Abdou Diouf yàlla gën a wér ki ak maître. Abdoulaye Wade ak bépp boroom xam-xam ak boroom euh, kilifay politique ak kilifay aada ñu tàllalante loxo kenn ku ne li nga mën a jàpp ci réew mi nga jàpp ko ci nan ngay gisee grandeur boobu président def. Euh, ma waxaat ne bëgguma wax sama wax nekk lu ñuy analyser ci sur le plan politique duma politicien. kon xooluma mbir yi bëtu politique maa ngi koy xool. bëtu ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal. en citoyen. en tant que citoyen léegi président Macky Sall moom la ñuy tànn na teg ko ci kanam. kàddu googu mu wax pour man lu positif la. lu ñu war a positivité la dañ ko war a fex jël. même bu nekkoon dafa négatif sax ñun nañ fexe bu nekk lu positif. Hmm. ñu jëmmal ko hmm. moo tax. di xool ci ginnaaw ndax kàddu gi wér na wala wérul am na lu lal ci ginnaaw wala lalul ñun ñooy dem fexe kàddu gi nekk lu wér mm-hmm. ñun ñooy dem fexe ba kàddu gi bu ñu lal dara ci ginnaawam mm-hmm. ñun ñooy dem toog waxtaan ak moom tëral ay objectif yu leer mm-hmm. orienté waxtaan wi fan lay jëm ba jëriñ Sénégalais ba jëriñ Sénégalais yi loolu tam lu mat a bàyyi xel la. waxtaan bi fan lay jël kon pour man jàpp naa ne gannaaw woote na te woote lu positif la toog waxtaan lu positif la rek nañ ko jël. Hmm. nañ ko jël dem wuyu ji toog waxtaan wax ko ne nag waxtaan bi nii lay tëddee lii mooy ci suñu xalaat yaakaar naa ne suñ ko defee noonu incha allahu taala dina am njëriñ bu ko neexoon mën a jàpp gagné naa euh, cinquante huit virgule pour cent. Hmm. Euh, kon am naa majorité. Hmm. woowu ma kenn ci waxtaan. waaw kenn du ci mun dara itam. mais gannaaw nee na kaa leen. Mm-hmm. ñun ñoo ñëw ko ayca bismillah. Mm-hmm. waxtaan bi dañ ko yàkkamti sax nag. Mm-hmm. ñu toog waxtaan. su fekkee am na lu ñu naqari ñu ne ko lii baaxul. ci sa man ci sa sa man naa bi weesu. lii du noonu suñ ci affaire yi rafet lu ñu ne ko lii baax na mais euh, am na nangam ak wax ko suñuy xalaat ba mu leer naññi. bu ko defee ñu wan ko ne sénégalais yi ñu ngi xaar ci yow lii. li ma wax ni moom la sénégalais xaar nii. dañ koo war a toog. seq ko càmbar ko waxtaanee ko am na yu bëri fi nekk ñu ngi naan euh, or bi fii ñu ngi naan zircon bi fii ñu ngi naan gaz bi fii ñu ngi naan pétrole bi fii mm-hmm. loolu nit ñi kenn ku ne yaa ngi yokkamtoo di xaar mm-hmm. su ñëwee euh, lan nga ci war a mën a am mm-hmm. lu ci Sénégal war a am waxuma kuy séentu sa mbir waaye lan la ci Sénégal war a am lu mu ci lu muy jëriñ Sénégal ñu ngi wax ci contrat yi nga xam ne signé na ko ak euh, yeneen i partenaire loolu tam ñu war a toog càmbar ko wax ci lu ci leerul mu leer ñu avancé hmm. bu ko defee euh, gis nga fii euh, Saïd hmm. question bi dafa am solo hmm. gis nga yii bu leerul réew mi day bloqué wu nit ñi duñu avancé loolu moo tax may wax ne woote dialogue bi lu positif la woote dialogue rek lu positif la woote dialogue waaw woote bi ak ku ko mën a woote lu positif la léegi nag moo tax wuyu bi su amul léegi yii nii ñu war a réglé duñ ko mën a réglé suñ ko réglé woon duñu avancé te itam ëllëg du ñu am ngànt. waaw te ëllëg du ñu am ngànt. moo tax dañ ko war a régler. Mm-hmm. ñu ñu ñu avancer parce que dañu war a liggéey. man mm-hmm. mandat bi pour ñu ne élection yi baax pare na diw gagné na euh, tabb na ay ministre am gouvernement bi taxaw na ñu avancer déedéet mais dañu war a dem liggéey. léegi nag yi nga xam ne mooy tax duñ mën a liggéey. dañu war a toog waxtaanee ko mu féetee boor. Mm-hmm. kenn ku ne daal di a départ waaw oustaz li ñu war a waxtaan bëri na mais waxtu bi. moo ñu ñett. Mm-hmm. léegi Sénégal yi ñoom. dan mm-hmm. la ñu war a taxawee dañu ne war par force Macky la li ñu soxla woon yëpp par force dina ko def est-ce que am na kàttanu mën koo def est-ce que lépp mun na ko defandoo ci benn sumb. moo taxoon may wax ni faaw ñu am agenda bu leer calendrier bu leer objectif yu leer ñu am ay date yu ñu tëral ne lii ci date bi buñ ci àggee war nañu mën a def lii. Mm-hmm. ndax ñu mën koo évaluer. te dugul ne dañuy jàpp ne ki sàll wala gouvernement bi ñoom rek ñoo ko war a def ñun sénégalais yëpp ñoo ko war a def bu fekkee kenn ku ne da ngaa taxaw li nga bëgg a euh, dundee doo ko liggéey da koo bëgg a làqar ci lijjanti ko réew mi du dem ñun ñëpp nañu ànd du jóg mhm. ku ci ne fa nga féetee nga liggéey ndax am na loo xam ne soo ko deful réalisation du bana am mhm. kon ñu ngi woo ñëpp ci dem liggéey parce que Sénégal avancé mhm. waaye gannaaw état moo fi nekk président moo ko jiite ak gouvernement am ñoom ñooy locomotive yi. Hmm. faaw ñu wax ak ñoom ci nañu xëj ci wagon yi ñu mën a def. ñun hmm. ñëpp nag ci wagon yi lañ bokk. kenn ku ci ne fa nga mën a lonk lonk la nga war a def nga mën koo def ngir réew mi ñu ngi woo Sénégal yi yëpp ci liggéey. Hmm. ñëpp nañu woo ñëpp ci liggéey nañ bàyyi tappale bi. nañ bàyyi laxarte bi. nañ bàyyi naxante bi. nañ bàyyi yeneen yi nga xam ne dafay gàllankoor ab développement. ñu ànd liggéey nañu jub. nañ defar jikko yi. jikko yi. suñu ko defarul duñ dem Mhm. loolu tam kilifa diine ñu ngi xaar ku fi ne ne. Mhm. dafa am foo bokk. Mhm. nekk fa taalibe. dégg nga wala nga euh, bëggee fa ak njub. ñoom jiite nañu wax nit ñi njubadi gi bëri na. njubadi gi bëri na yàqute jikko yi bëri na dañuy defar jikko yi suñu defaree jikko yi da ciy bokk dem liggéey am lu lew loo dundee. suñu ko defee incha allah taala mën naa am mu am changement. Euh, mbokk yi noonu lañ ko gisee noonu rek lañ koy defee di dalal borom xam-xam yi. Euh, di waxtaanee sunu biir ndax lii ñu ni neen la Sénégal moom la ñu aw ñu lu ñu toll wala lu ko ëpp li ñu war a waxtaanee bëri na ci tomb yi waaye benn bu ci nekk rek jaroon na def émission spéciale lan ngay tënkee oustaz. waaw di tënk tënkee ñaan rek. Hmm. ñaan ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla yokk Sénégal gii jàmm. yàlla ñu yokk déggoo ak benn noom hmm. na defar suñuy xool hmm. bu xol yi defaroo rek du baax. yàlla benn le suñuy xol yàlla may ñu ñu gis suñuy sikk mm-hmm. départu faju mm-hmm. moo gis ne a feebar mm-hmm. ñu may ñu gis suñuy feebar may ñu jóg pour faju ko te bu boobaa yal nañu ko borom subhanahu wa taala fajal moo xam suñuy feebar yi gëm laat suñu feebar yi diineeg yu aadaak yu ni yeneen yépp yal nañu ko yàlla saafaraale yàlla mën na ko yàlla ko def mm. ñu ngi ñaan réew yàlla def fi jàmm ñu ngi ñaan mandat bii bokk ci mandat yi nga xam ne dafay gën a neex ci sénégalais yi gën a baax ci sénégalais yi gën a naat ci sénégalais yi mm. yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin eh, amin ya rabbal alamin sage kontaan nañ bu baax ñu ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala fay la yiw di wax rek ne euh, wax neex na loolu waaye dégg moo ko gën tax àdduna bi léegi wax joo wax kenn ku ne fi mu taxaw la koy analyser mais li ñu wax leer na en tant que citoyen am kàddu am carte di voter bëgg réew mi am fi njaboot tey dox ngir réew mi développé am nga kàddu goo xam ne war nga koo wax nii rek lay demee toog boroom xam-xam yi nekkuñu fi di dàggsante nekkuñu fi di xastante nekkuñu fi ngir di xuloo waaye dañuy génne xel xel yi daal di koy teg ndax damay wax ne xel mu xelu saa yu xellee borom xel mën na kaa naan te xelam du teey te incha allah ak Mouslih TV xelu kenn du teey incha allahu rabbi di leen dox di leen dig daje beneen yoon tawfeex ak taysiir wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa